bukuratan wa aswila assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi déglu ak di seetaan xadis di jour noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq du ñaan sunu boroom subhaanahu wa taala mu boole nu jéggal bi nu leen di indil tey abi daoud génne na ko ca sunanam ba hakim tamin génne ko ca mustadrak jalaluddin abdurrahman bun abi bakrin as-suyuti ne hadith bu wér la ci al-jami'u saghir min ahadith al-bashir an nadir sahaba bi nga xamne mo netali hadith bi moy abi hurayra yalla ko yalla geureum mbok yi hadith bi di lo yàq digeunte ñaari way dencante hadith bi di lo yak digeunte ñaari way dencante ku nek ak jëkkëram nga fexe ba mu ku nek ak nga fexe ba dugal ci seen dig diggante fitna fitna goo xam ne bu dakkul yóbbuleen ci tàqaliko xaddis bi loolu laa moytandikuloo ak jaam jamono ya muy bari nga defi pexe ba jaam daw bàyyi sangam xaddis bi ñaar yooyu noonu le lay moytandikuloo di wax bàkkaar bi ci ni sang bu tedd ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne laysa minna laysa minna man xabbaba mraatan ala zawjiha aw abdan ala sayyidihi yenent bi nee na laysa minna bokkul ci bokkul ci nun ñu ne ko sang bi kan moo bokkul ci maanaam bu fekkoon da nga bokk ci mbooloom yenent bi dañ naan la génnee nañ la ci bu fekkoon diine ji parti la bu yenent bi jiite danaan la léegi bokkatoo ci parti bi lay sa minna bokkatul ci ñu ne ko kan mu ne man ki nga xam ne xëbba ba dafa yàq xëbba ba dañ ne afsada lay firi wala xadaa xëbba ba yàq gi mooy da nga fekk ndaw suy sey ak jëkkëram benn primi ci xabba ba mooy nga taraayir jëkkër ji am foo jaar ak ndaw si ba mooy ak moom da nga fekk ku nekk ak jëkkëram nga ne da koy dimbalee comme ni ko ñenn ñi di defee yëkkati enveloppe di ko ko jox soo amee soxla ñëwal nga wax ma man maay sa càmmiñ ba ndaw si dugganteeg yow nga jaare ko ci di ko dimbale foofu ngay sukkandiku ba saay-saayee ko njaaloog moom mooy benn ci xabba ba wala boog yaay la joo xam ni wala baay la joo xam ni doomam ju jigéen dugg na ci sëy ñu dem ba ci biir gisuñ ci sëy bi seen bopp ndax gisuñ ci seen intérêt da nga sonn ci sa doom ju jigéen ji fayal ko mu jàng école yu cher tàmbalee liggéey am jëkkër lam leen doon jëriñ jëriñatu leen ko bu leen doon jox fukk léegi juróom la leen di jox ngeen ne kii de jëkkër ji moo tax jëriñatuñu lam ñu daan jëriñ kon danañu fexe ba mu génn ci sëy bi yaay ja tàmbali di ko sikkal jëkkër ja baay ja tàmbali di ko sikkal jëkkër ja nii la mel naa la mel waaw man nag duma la wax nga génn ci sëy bi mais na nga xam ne sama yoon nekkatu ci du leen seet si du fa ñëw ndax sa jëkkër ji nii te yooyu yëpp dara amu ca li ngeen bëgg mooy mu roccee ko ca loxo waaja del siwaat ci seen loxo lam leen doon jëriñ mu leen koy jëriñ benn la ci xeetu yàq ab diggante waaw wala boog su fekkee wax nga wax gis ne wax sottiwul nga dem ci maamani ngir ñu dëddale leen ñoom ñaar ba dootuñu xoolante dootuñu juboo ci ay kàddu lu mu ci ci yooyu ku ko jëf yenent bi nee na bokkatoo ci sama xeet moo xam da ngaa trahir jabaru jàmbur dem tëdde ko wala boog da nekk sëgg sëgg ci nopp jabaru jàmbur sa jëkkër ji lii sa jëkkër ja laa nii la mel tasal sa sëy bi génn ci bi nga ci duggeek léegi xoolal kenn xamatul li ngay niru sa xarit yépp léegi dañ may kalaameeg yow ne doo leen nemmee kooti jàpp ndaw sax di sol ca nopp ya kàddu ba mu tàppaas jëkkër ja tas ak moom yow mi fexe ba mu tas de ndaw sa mucc na xëy na waaja mucc na xëy na mais yow ma muccoo soo tuubul bàkkaar boobu ba deyaale ko safara nga jëm ndax bokkatoo ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala jamono ya jaam di am yaa dem di wax di jëf ba jaam ba daw sangam yow tamit bokkatoo ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa mbokk yi nañu moytandiku yàq diggante ñaari way dencante fekk ndaw su bëgg jëkkëram nga nekk cay wax di wax di wax ba mu tàppaas jëkkër ja nga naan waaw man maga may euh, xale may sóoru mais maga may daan da nga dégg léeg-léeg way jur bu génnal ci sëy bi mu bañ nga fexe fexe jaar ci maam man dëddale ko ba génn ci sëy bi nga ne ko waaw man xale may sóoru mais maga may daan waxoon naa la nga génn ci nga teg ne am nga ndam fekk amoo ndam de ngaañ nga am te yëgoo ko boo ko jàppee kaañit du kaañ mais ngaañ la kon ñaar ñuy ànd boo mënee wax ca lu rafet def ko ca soo ko mënul maandu ca lu ko moy rek yàq nga diggante ba rek mooy génn nga ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla ñu si yàlla musal mbokk yi lii moo nekkoon xadiisu tey bi di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mu defal ñu ci ak dégg gu ànd ak ku topp te ku jot ci xadiis yi nga koy jottali ndax lépp yiw la tabaarakallah Omar Samb moo nekkoon ci caméra bi ñaan sunu borom mu defar sunuy affaire yokk sunu chiffre d'affaires may nu yaram wu sedd bu ànd ak xol bu sedd ba suba ak jàmm incha allahu taala ñu dikk génn ci beneen xadis wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu بخشوعي دوما ألقى بني الإسلام على خمس